docteur Abdou Khadre Sanogo ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay bu baax di rafetlu aussi euh, invitation bi di nuyu seen auditeur ak seen auditrices yi leen di teewlu. ngay sociologue di tamit spécialiste en genre comme ni ñu ko le euh, sànq. ñuy uh-huh. màggal euh, bésu vingt cinq novembre bi bés bi ñu jagleel bépp. élimination euh, li nga xam ne mooy métital gi ñuy métital jigéen ñi euh, tey mhm. jii ndax mën nañoo ne Sénégal ba tey mbir maa ngi fii mbir maa ngi fii wàññeekuwul da rek xanaa peut-être li ñu mën a teg bët la ñuy wax mais li ñu mënul teg bët moo ëpp foofu li ñuy teg bët jigéen ñi souffrir mhm. jigéen ñi am métitu xol jigéen ñi jooy jigéen ñi tënk lu metti ci seen biir xol bis bu nekk te duñ ko wax. Mhm. te di wéyaale moom kenn xamul nu nu nu mu toll parce que ni askan bi tëggoo dafa def comme ni ñu ko doon waxee sànq ñu leen di wax ni yéen da ngeen war a muñ euh, da ngeen war a gàtt làmmiñ da ngeen war a gàtt tànk da ngeen war a gàtt gis-gis da ngeen war a gàtt bëgg-bëgg donc dañ leen a restreindre à telle enseigne que ñeme sax ñemewuñu di wax ñoom soo waxee ñu ne la jigéen day muñ soo waxee ñu ne la jigéen euh, day endurante soo waxee ñu ne la jigéen. Euh, day fonk waxu kilifa soo waxee ñu ne la jigéen day fonk waxu waajur donc euh, peut-être paramètres yooyu yëpp nag dafa dajaloo ci ñoom ndeysaan ba tel à tel enseigne que ñi ci dund lu metti mm-hmm. te duñ ko wax kenn xamul nu mu toll loolu nag li koy matérialiser sax ak a simple boo xoolee taux de mortalité bi rek da gis ni li jigéen ñi di wàññeeku kenn xamul nu ñu toll léeg-léeg nekk ci âge bu précoce ñii nekk ci euh, euh, âge jur ñii nekk ci âge aussi euh, xëy na nekk ci waxambaane ñi liggéey moo leen sonal ñii dañ doon peut-être mucc ba faf affaire yi mujj leneen ñii dañoo am ay yenn grossesse yoo xam ne ñii xëy na sax foog naa ne soo deful nag mën naam dañoo yegg seen kaw wala dañ leen a yàq taan ñu bëggoon di ko dindi ba fi leen des te yooyu yëpp kenn du jugé dañ naan rek ak ñoo bon dañ naan rek gis nga de dañ naan jigéen yàqu na dañ naan te kenn du gis que ci ginnaaw. Mhm. li dal ñoom ñëpp. Euh, sàgganuk société bi ci gis-gis ak ci nekkin moo leen ko teg. mu mel nii tey violence du rek euh, physique am na yeneenu xeetu violence yi nga xam ne mën nañ koo def si euh, jigéen gi. waa gis nga xeetu violence yooyu ñoo gën a bonati sax xeetu violence physique xam nga physique sax danga nga naan da ngay ñëw dóor nit mu faju fenn après xëy na. Mhm. mais loo xam ne nii ci xol lay jëm ak ci xel. ërtal nit ñoo ñantal nit tiital nit teg toroxal nit dóor la summi sa yére ci mbedd mi euh, xam nga dëgg euh, jànni la xiifal la d'accord mhm. euh, gedd la forcé la léeg-léeg sax nga gis jëkkër boo xam ne ni ci farata ak sunna su buggee ci yow day mel ni rek xëy na ab malaam la yore fu mu la mhm. soxlaa yow soxla wér nga wala wéroo yoonam nekk ci jox la njaboot goo xam ne ni aussi bu dul jeex amul espacement de naissance joxuñu la nga lekk joxuñu la nga naan ngéntewuñu sa doom joxuñu la nga def say CPN donc yooyu yëpp aujourd'hui góor jigéen ñi ñu ngi koy te loolu moo gën a garaaw man nga jël yar di ko dóor nit parce que soo ko doon dóor sax xëy na su paree après mu sedd mu dem mais lii dafay heurter psychologie wu nit day mhm. heurter xelam day heurter xolam day heurter nekkinam moo tax ñu bëri ci ñoom seen xel nekkatu fi mën nañuy wax ak yow nii rek donc affaire santé mentale bi. Mhm. affaire santé physique bi parce que am na ñu ñoo xam ne nii sax physique bi psychique bi. moom la ñuy heurter tellement que dafay répondre ci physique bi. Mm-hmm. à telle enseigne que ngay leen di gis léeg-léeg nga xaru léeg-léeg ñuy jaay seen bopp donc ñooñu ñëpp nañ jàpp ni ay victimes lañ. te ñuy seet lan moo leen di yóbbu ci doxalin bi et non pas ñu leen di juger très souvent. Mm-hmm. donc effectivement je confirme violence bi nga xam ne nii euh, moom mooy violence bi ñuy teg ci xel yi ak ci xol yi. Mm-hmm. moo gën a grave sax yi ñuy teg ci dere. docteur tey jii ndax violence euh, basée sur le genre dafa am benn diwaan wala ay diwaan yi nga xam ne euh, fréquence bi dafa wutele waaw mun na nekk de mun na nekk mais man personnellement je trouve que waruñu ko tëgg analyse bi ci ay dimension géographique mm parce que suñ ko defee rek dañuy jub si mentalité la mm donc ñi nga xam ne ni ñoo gën am euh, peut-être perception ak mentalité wu accepté ni que jigéen dafa nekk rek benn tànk buy mottali tànk yi nga xam ne ni moom la nit war a doxee. Mm-hmm. mais du poser problème mais aujourd'hui bon écoutez euh, oh, dañ doon yaakaar ni ci ci ville la waroon gën a wàññi ko. Mm-hmm. mais gis nañ le contraire. Mm-hmm. foofu la nit ñi gën a jàngee foofu la nit ñi gën a évoluer mais davantage ñooñu ñoom ñooy gën a violenté jigéen ñi. aussi gis nga li ma la doon wax rek quoi di xam nga soo nee oui est-ce que si si si zone géo ndeysaan léeg-léeg violence bi day demee noo xam ni sax jigéen ñi xoolal par exemple publicité. Mm mais ku bëgg a jaay sa produit jigéen ngay jël mu def yaramu nen mm-hmm. mais ku bëgg a def yenn sport yi sax ku bëgg def yenn yenn jaay yenn image il faut nga def solo jigéen bikini mu war a mu mu mu mu wane yaramam. Mm-hmm. ku bëgg a publicité yenn ñi dañuy xoolal da léeg-léeg da ngay jugee de Thiès à Saint-Louis wala de Dakar à Saint-Louis panneau boo gis jigéen la moom la ñuy wane mu mu teg benn saabu wala mu teg serviette wala mu teg donc on chosifie la femme dañ koy jàppee comme benn maanaam objet boo xam ne nii rek. su la neexee nga utiliser su la neexee nga sànni donc man mënu ma ko wax ci ay zone géographique mm-hmm. mais dama koy wax ci mentalité dama koy wax ci perception dam koy wax ci éducation dama koy wax ci niveau d'inscription même si euh, tendance yi fi mu gënoon a bëri moom mooy ci dëkku kaw yi parce que dañu jàppoon ni ñooñu xëy na seen jàng moo gën mooy ñoom mais léegi jàpp loolu mënatuñ ko wax parce que si biir ville chaque jour boo boo taalee télé wala nga taal rajo wala nga déglu journaux <laughs> comment dañ lay wax ni tel Thiès lañ lay wax wala ñu wax la Dakar wala ñu wax la Saint-Louis wala ñu wax la Kaolack et te parle de la ville donc ce qui fait que en fait euh, lieu de résidence bi c'est moins important mais c'est beaucoup plus profilu kan moo koy def mhm. ak lu tax mu def ko waaw lu tax tamit ñuy def violence yooyu lii mais généralement c'est que euh, man man man su ma koy tënk dama naan góor ñi dañoo ragal pouvoir bi ñu yoree ñu perte ko jigéen ñi jël ko <laughs> parce que soo jëlee domaine yi ci monde jigéen dañ commencé def ay résultats yu extraordinaire mm-hmm. ba soo tey jii exemple bi may joxe très souvent on a parlé ici de traque des biens mal acquis mm-hmm. allez voir sur la liste doo fa gis benn jigéen ci wàllu doxalin bu sell ci wàllu yorin bu sell ci wàllu euh, même résultat scolaire yi demal mm-hmm. aujourd'hui partout moi j'ai ci sama ci sama thèse ci problème mu genre ak éducation aujourd'hui jàngalekat laa aussi classe boo jël les meilleurs c'est les filles donc certain bon beneen bi ci des aussi mooy xam nañ ni jigéen ñi suñu commencé di yeewu di nekk avocat di nekk magistrat di nekk journaliste yooyu seen gafaka dara jàng ni nga leen waroon a téye di leen mm-hmm. teg sa tànk mënatoo ko mm-hmm. donc cette peur bleue là ah moom la góor ñi am à en que ñoom jàpp nañ ni léeg-léeg sax da nga koy dégg si waxtaan ñu ne la jigéen soo ko yoree da koy teel a jël njël mu njëkk soo ko njëlul jël mu njëkk mu jël la jël mu njëkk <laughs> donc loolu nag man dama jàpp ni ragal la Les gens ont les, les, les, les, certains hommes on peur de perdre le pouvoir. Donc, ils veulent conserver le pouvoir, ils veulent perpétuer ce pouvoir patriarcal là. Mhm. mooy mooy mooy mooy doole ji nga xam ni góor da koo am ci suñu askan bi ñoom jàpp nañ ni suñu yox yoxee mu wadd te su waddee jigéen ñi jël ko. te suñ ko jëlatee ñoom aussi seenug dayoo day wàññeeku loolu la loolu moo tax violence yu bëri. gis nañu activiste yi taxawaay giñ ci am ngir mu dakk mu jóge fii ba abadan euh, ndax jàpp nga ne état gunge na leen euh, teg ci ay matuwaay yi su ko defee li ni mel en tout. bon état de moom xam nga ni bon bul fàtte ni aussi j'ai l'habitude de dire. Hmm. l'état a un sexe masculin. donc nguur yi ngay gis ni yëpp ay góor a ko diriger góor ñi ci ëpp même si ils font semblant de dire que oui dinañ def ay effort dinañ dinañ fexe ba maquiller affaire bi rek mm-hmm. mais ñoom aussi euh, état yi bugguñu benn yoon que jigéen ñi États-Unis bi nga xam ne nii sax seen seen moom mooy réew mi ñu wax moo raw gis nga bi jigéen demee ba nekk en ballottage pour nekk président de la mm-hmm. République dañu dañoo dañoo préféré jox ko waajoo xam ne ni ci wàllu xel ak ci wàllu nekkin il n'a rien compris mais l'essentiel mooy bu leen jigéen bu leen jigéen jiite donc soo ñëwee nag aussi ñun ci sunu réew yi à fortiori mais il me semble que aussi activistes yi bon ñoom aussi discours bi affaire yi dafa des léeg-léeg nga dégg ko naan la waaw non man voilà jigéen ñee ma tax a jóg mais ñoom ñëpp ñi koy wax ci 4x4 la ñuy dugg. Hmm. oto climatisé la ñuy nekk kër climatisé la ñuy nekk. kon daal da seen euh, message bi euh, dëgguwul. waaw non ñemewuma wax dëgguwul parce que euh, peut-être que mën naa mën naa leen tooñ mais li ma leer daal mooy bi ñu ko yàggee wax ba léegi. du point de vue des textes gis nañ fi parité gis nañ fi observatoire de la parité. Hmm. gis nañ fi ay assemblée yoo xam ne nii waa composé ci euh, peut-être jigéen ñi nii lañ góor ñi nii lañ mais au fond au fond au fond non seulement sénégalais yi li ñuy sonn sonn sonn sénégalais yi gën a sonn. Mm-hmm. ñoom ñoo yeewu quatre heures du matin di emprunter route yu bon ñoom ñooy yeewu gis nga soo demee si guerre yi seen doom moom moo ciy décédé mm-hmm. boo ñëwee si yenn àll yi ñoom ñooy yeewu si si champ de rizières yi mm-hmm. ñoom ñooy nekk si njaay mi ñoom ñooy nekk si tool yi ñoom ñooy nekk si naaj bi ñoo en plus boole ko nag yore jëkkër yore jabar yore koro ñoom la ñuy xas ne leen ni ngeen defaree affaire yi baaxul ñoom la ñuy chantage ci entreprise yi ñoom la ñuy harceler ne la non soo soo ñëwul accepter ay promotion canapé nga jaar nii nga mhm. dem sa yoon mhm. donc affaire boobu noonu mi ngi am bis ci biir kër yi ñoom ñoo nekk aussi employé yi nga xam ne nii ñoom ñooy gàddu xale yi ñoo ñu yóbbu garde yi te ñoom la ñuy traité de sàcc ñoom la ñuy jiñ ñi ñoo fi jël oor ñoom la ñuy dul jox ñuy lekk ñoom ñooy lekk si waañ mi ñoom ñoo dul dugg ci salle bi ñoom la ñuy fay ay somme yu dérisoire même pas quarante cinq mille ñoom ñoo dul am contrat te heure bu leen neexee ñu jiñ leen dara ñu dàq leen mhm. mais loolu dama ne ñi ci ëpp ñi koy def c'est des femmes intellectuelles yoo xam ne ñu ngi nekk seen biir kër di la rey ak ay genre te ils traitent mal jigéen ñi nga xam ne ni ñoom ñoom la ñuy liggéeyal te foo leen fekk seen compte bancaire yi mi ngi fees del ñu nekk ci avion yi di la bëgg a ay sommet de tel sommet de tel sommet de tel te loolu wàññiwul daara ci jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy dund. tey jii docteur ndax jàpp nga ni li ni mel euh, dina fi gaaw a jeex bu ñu gisee suñu société bi ni mu tëree nga xam ne euh, tey jii la wax ñu ne la muñal wala sax jigéen làmmiñam euh, da ko war a téye entre autres sutura ak yooyu yëpp nga xam ne dañ koy prôné. waaw man ci li ma jàpp de mooy. bu ñu buggee mu teel a jeex moom. góor ñi dañuy wopp seeni tànk tubéy jigéen ñi fas seen lafu sër ñu engagé ndoo ci dara lu opportuniste ñu wax ñu def ko ci mu nekk conviction bu foot ñu ci fànn bu nit mën a nekk. Mm-hmm. ñu ñu ñu bay suñu waar ba lii soppeeku parce que ñu xam ni en fait góor mooy mottali jigéen jigéen mooy mottali góor ñoom ñaar ñëpp ñu ngi tudd un être humain su ñu tuddee un être humain amatuñu sexe foofu la ñu mm-hmm. bokkee. Mm-hmm. li ñu bokk mooy ay doomu aadama la Adama mooy sunu maam nous sommes des êtres humains donc cette humanité là d'abord n'a pas eu de sexe donc góor ak jigéen peut-être ci wàllu sexe après am na lu ñu différencier mm-hmm. mais que su jigéen amee doyuwaay boo xam ne nii mën na liggéey lu jigéen lu góor mën a liggéey nañ ko bàyyi mu defi ko loolu nag li nga li nga wax lu am solo la mm-hmm. suñu deful loolu du du du nekkul ci temps yëpp parce que société bi ni mu bindoo mm-hmm. dafa nekk loo xam ne nii li koy freiner mooy suñu surtout suñu société sénégalaise société bu gëm la même suñu dul pratiquer dañoo gëm am na yu bëri yoo xam ne nii dañ koy référé aussi christianisme wala ci islam te ñoo xam ne nii ñoom ñoo fi référence yi am nga dimanche prêtre moom mooy def messe. Mm-hmm. vendredi imam moom mooy def sermon. Mm-hmm. ñooñu bis bu seen mentalité changé wul ci question bi ñi ñuy jiite par vendredi ak par dimanche dañuy perpétuer les mêmes choses donc le fond du débat mooy wax ji nekkul ay dem si àll yooyu nañ jéem a waxtaan ak ñi ñoom ñoo ñuy jàngal ci suñu diine ñoom ñoo ñuy jàngal si école yi ak programme yi ñuy jàngal muy programme mu diine yi comme muy programme aussi tubaab yi. Mhm. ñu def ci ay modules yoo xam ne nii dina tëgg xale bi nga xam ne moo war a nekk mag suy màgg di jug du am benn allergie vis-à-vis de la femme day xam ne rek jigéen partenaire yu góor la góor aussi partenaire jigéen la te loolu nag su amul dina jafe lool comme ni ko waxee parce que société bi ñu nekk nii dafa nekk société boo xam joxul cër trop jigéen. code de la famille mu doon lu ñu ngañ jamono ji jigéen ñi di ko ngañ ne ay manquement yu bëri ñoo nga fa ndax soppikoo dina tax tamit ba ñu àgg ci. Euh, li ñu bëgg nii. je ne pense pas xam nga code de la famille moom dafa xaw a sensible. te ñoom ñi nekk ci combat boobu su ma amoon conseil bu ma leen jox dama leen di wax nañ ko jaare feneen lu dul ci code de la famille. nga foog ne du antu. kam maanaam combat bi ci jàll dafa am dafa am ay kilifa yoo xam ni yu mag la ci histoire Sénégal ci diine. Mhm. dañoo opposé wu woon ci mbir yooyu noonu à telle enseigne que vouloir aussi par respect à leur mémoire ak liñ fi dayoo bi ñu am ci réew mi. Mm-hmm. toog fii di wax ne non affaire bi du ay affaire de code de la famille code non code non voilà am que oui am na. Euh, principe de base yëpp foofu la féetee parce que am na lu bëri loo xam ne nii ay autorité parentale ak ay mais man li ma jàpp moom mm-hmm. bu bu ñu demee ba société bi góor ñu ci boppam nekkatuñu di buuxante ak jigéen ñi soxlaatuñu texte yu koy régir parce que soo ñëwee ne sa jëkkër damay dem fenn day xam ni yow loo nekk-nekk jabaram am nga droit dem rek la ji sa soxla nga ni ko da ngay donc tey code bu ñu fi munoon di indi su fekkee ni aussi góor ñi ci boppam ñu ngi continuer di bundu xatal truc même si le code le permet mm-hmm. boo leen tëjee kaso dañ naan waaw gis nga bi ñu mu soppeekoo léegi jigéen lañ bëgg société bi doy na waar société perception boobu suñ représentation yooyu suñ demee ba déconstruire ko te mënuñu ko déconstruire lu dul ci tàggat bi ñuy tàggal xale ci li ñuy jàngal bi ñuy jàngal xale su loolu weesoo loolu duñ ko mënati mm-hmm. donc à tel mm-hmm. waaw à telle enseigne que à mon code de la famille bi man personnellement mm-hmm. par principe bon après c'est vrai que ils vont dire ah, ñoom ñëpp a yem ay góor lañ mais man gisuma ni c'est un débat de code de la famille c'est un euh, de processus éducationnel mais surtout c'est un débat politique na jigéen ñi ñafe di dugg ci parti politique yi di dugg ci syndicat yi di buuxante di buuxante di buuxante ba jot ci yenn poste de responsabilité yi jour bu ñu nekkee ci poste yooyu wala ñu toog taabal yi ñuy dogale pour ñu défendre principe yooyu day neex mais mieux ñu fexe aussi ba góor ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk suba ci poste de ci poste de responsabilité yi mm-hmm. suñ fa nekkee ñu nekk président wala premier ministre wala président de l'assemblée ñoom ci seen bopp seen biir bopp li ciy nekk mooy xeex boo xam ne ci seen wàllu nekkin maintenant loolu nag ça n'a rien à voir ci diine ak ci aada. aussi jigéen ñi mën a xam ni aussi du fépp ak lépp lañ tolloo ak ñoom. Uh-huh. daf ci am ay dimension yoo xam ne maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci protection de droit dafa jëm ci affaire xam-xam affaire liggéey affaire a pas de souci affaire libération a mën a wax uh-huh. a pas nag su ngeen tënkoo ci seen rapport entre papa ak doom entre jëkkër ak jabar su dina ci am dimension yoo xam ni aussi il faut ñoom. ñu changer perspective. Mhm. parce que daf ci am ñu bëri ñoo xam ne nii dañuy làqatoo ay affaire droit xaw ma lan genre alors que c' est des man moom personnellement je suis contre le féminisme mais je suis un grand euh, comment ça s'appelle encore acteur euh, de la promotion du genre. d'accord le féminisme mooy lan. mooy fu loo gis rek yaa ngi naan loo munti gis nga ne non góor ñi dañ ñoo bëgg a def lii dañuy ça c'est être paranoïa. <laughs> d'accord dañ xam ni waaw dañ xam ni góor ak jigéen amul différence. bu ñu buggee tabax askan ñun ñaar ñëpp lañ soxla suñu xel ak suñu xalaat et pour ce faire il faut ku nekk aussi jox cër moroom. docteur ci benn simili rek. noo jàngatee campagne seize jours d' activisme contre les violences faites aux femmes. campagne seize jours d' activisme xam nga ne du loolu moo fiy dindi violence contre les femmes maintenant c' est pas mal mais dama leen di conseiller juste nañ dem cibler ñi ñu war a cibler pour man ñi ñu war a cibler mooy porteur de voix yi ak sëriñ si wax ak sëriñu daara yi wax ak mag ñi wax ak chef traditionnel ak coutumier yi ci yokkaat leen encore ñu mën a xam ni ci seen biir kër yi ci seen njabootu diine yi ñu yor mm-hmm. nañuy prêcher la bon parole dans le sens u ñu xam ni ñun ñëpp njabootu suñu borom lañ sunu borom mi nga xam ne nii ñun ñëpp moo ñu sut mm-hmm. joxul kenn doole joo xam ne da koy wan sa morom te jigéen par le simple fait que humanité ci moom la jugee parce que moom moo jur ba njaboot mën a yaatu ci kaw suuf mm-hmm. nañu yokk di wax suñu njaboot gi seen njaboot ñoom ak ñi nga xam ne ñoo leen gëm ak ñoo leen di topp ci davantage ñu am beaucoup plus de considération d'équité d'égalité et de respect ci góor ñi ak ci jigéen ñi parce que lool aussi du si endroit am na yenn zone yoo xam ne contrairement ce que les gens pensent mm-hmm. am na aussi ay jigéen ñoo xam ni dañuy def ay violences vis-à-vis des hommes donc man dama jàpp ni par rapport au respect de la dignité humaine mm-hmm. nañu dellu si boo xam ne nii dafay jox cër jox gëdd nit doomu aadama par le simple fait que comme ni ko yàlla waxee woon man maa wormaal doomu aadama quelque que soit sexe dañ ko war a jox cër ak dayoo bi mu bi mu bi mu mérite. d'accord merci beaucoup docteur Abdou Khadre Sanogo. mais c'est moi c'est moi c'est moi maa ngi leen di gërëm di leen sant.